non man jotuma dóor parce que comme si dëkk bi laa dëkk te fii laa juddoo. du dóor jigéen amul droit dóor kenn. waaw man jotuma dóor mais jot naa nangu sama téléphone ne ma indil téléphone bi ma ne ko joxuma la. Hmm. mu ne ma indil téléphone bi ma ne ko joxuma la dañ doon jotee si guddi gi. loolu jeudi la c'était le jeudi moom vendredi la fi quitté dem ñibbi. Hmm. mais jotuma dóor laalu man loolu dama koy leeral te dara jaraluma ma fen man. ok euh, léegi lan lan moo ma police da fii fekk ok lan moo tax yow nga nangu jabar faj mer nanguwuma jabaru faj mer moom lim ma wan la moom dama ko mhm. présenté sama famille sama famille Sénégal sama famille États-Unis fii dama dama leen ko présenté ñoom ñëpp baax lañ gis ci moom loolu lañ ñu wan dafa masqué kanamam kii dafa faux wallahi azim dafa faux barki alxuraanul karim bu fekkee li may wax du dëgg yàlla naa torox ba faw lii yàlla na këpp sama kaw kiin ngeen gis nii dafa foo wallahi azim dafa foo du yow léegi moom du nit ku baax léegi miyaa may ma ma ñëw miyaa gise génn na wax na noo fees nangam nangam am lu mu wax ñépp ànd ak miyaa gise ne miyaa gise nangam nga xool mu leer la ne la lii mi ngi toj àdduna yow nga nangu dug nga nangu yow ñàkk jom duggee noonu ci noo fees bay takk takk suuf takk boo xam ne yow bu ma la laajee fu ko takkee nga ne je pense je pense à Mbour je pense au Sénégal parce que yow xamoo fu ñu takkee sëy bi no face moom wax na carrément takk bi may ma ñëw rek. parce que sama benn wul mariage bi moom ay famille am ñoo loolu moo tax ma ne la. affaire waaw kon yow amoo kilifa. lépp ci vidéo la. non non mais ma ne kon yow amoo kilifa. su li ñel naa la dara mais dafa mel ni bàyyi woo xel. waaw mooy lan. donc lii bu ma dalee dama naan nattu la waaye maa ko teg sama bopp. ok mais li Mia Guissé wax lépp dëgg la tey ah. maa koy dëggal te moom No Face du génn di ko di wallahi la azim li may wax yëpp li may wax ak li Mia dund lépp dëgg la. ok wallahi la azim. ok ñu wàccee ñu wàccee tension yi ñu wàccee tension yi.